alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaad bifurud wa sunan sakartuhu lianna qad saahani liwatani bihi nafa ma anfani bismillahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu del siwaat ci 2317 ci ndigalul borom bi tollu ci at waaye nag dina ñëw ci li mbokk yi sàkkoon ci ibrahima alayhi salaatu wasalaam ak njabootam ak tey jii boo ko doon évaluer solo si mu am ak mbokk mi ni eh, ñen la yàlla dig sawara eh, ndax yéfar yi rek la eh, ak yeneen laaj yoo xam ne bu ñëwaatee ci suñu xel lu ñëw ci incha allah e, mbokk e, waaw waaw beneen laaj bi mooy mu ni ki nga xam ni dafa aji màkkate e, amee ay bor kooku tontu woon nañu ci xam nga aj màkka daa bokk ci sarti aj yi jullit war koo xam wax nañ la démb ni la léeg nga woo nit ni ko waajal ren dama la yóbbu màkk ah boo yónnee woon ci moom eh, nit ñëw ni ko ah, yow de laa mel ni daal bëgg a jàppale de léegi nag moom xelam daa nekkoon ci dem màkk mu wax ma ko ma ñëw bëgg ci waxtaan ak yow ndax nit moom moo xam màtti lalam yàlla xam na ni ñu bari boo leen ko waxee dinañ ah waay waay diw mi man mënu ma koo fay de ah màkk bëgg naa caa dem lool lool lool waaye dégg nga fi mu ne day laas gor di wee yàlla bu ko ab saay-saay xam mu daal lay wax boppam soxla yu taxaw yoo xam ni ah, mu ngi doon ñaan yàlla bu mu ko faatuwaale ak yoo xam ne yow sax xam nga ko xam nga di diw mi jekkati gi mu jekkati nii ak njabootam gii su ko defee mu mu mu lam ko naroon la bi billet mu yëkkati ko mu jox ko ko mu defar ci fa muy dëkk ba ab luyaas wàcc ko wala néeg yuy senn ba wàcc ko te gis nga néeg yuy senn boo ko xeebee da nga ko amul rek ko boo ko amee bu bàqi see tooy yow noppi nga am jàmm ba keroog taw bi taw bi wàññeeku waaw kon eh, ki nga xëy nag moom ay biye yi da koo yomb lool biye mag yomb na ko lool mu jël biye yi di léegi di ko maye biye yooyu bu fekkee ni mën na koo wecceku def ko xaalis yow bu loo ko maye bu loo ko joxe ngeen ko dëgg yàlla bëgg naa ko lool waaye sama nangam sama nangam mu xam ni lii moo gën a far ci yow te aj waragu ndax mënoo ko mu jox la bi nga def ko xaalis faje ko soxla soosu loolu dara nekku ci waaye daal bu la yóbboo fee nga amee borit nga rus koo wax lu tere aj wàcc na la waaye bor ba wàccu la nag bor ba wàccu la aj nag mën na laa wàcc su fekkee dem nga ba ñëwaat desoo fa bor bi moom du la wàcc aj nag wàcc na la ci sariya waaw kon sart yi ginnaaw da caa bokk euh, mooy boroom xam-xam yi boo demee ci boroom xunja euh, day wax ci aj bala ngaa dem sa dundu njaboot ba keroog ngay dellu si waat fay say bor yépp ba mu mat sëkk sëkk sëkk lu la yóbbu delloosi la ba mu mat sëkk loolu ci wàllu alal la ñu su ko xool wàllu yaram bi mi ngi noonu nekkati kon su fekkee ni dangay yóbbu li ne lépp sa njaboot bàyyiloo leen fa te yaa leen war a yor ah yow yaa ngi mànkil àq joo leen ameel àq joo leen kon daa bokk ci sart yi mooy sart yu mel noonu ndax dafa teg ci loo addis bi alayhi salaam bi mu wax ni kafa bil mari ithman an yadia eh, man yaxuutuhu waaw abu dawud ak ahmed nettali nañ ko ñu doy na sëkk bàkkaar ci as cam nee muy bañ dundal koo xam ne moo ko war a dundal waaw <clears throat> wala an ya diya muy sànq min uh, xóoti yi ci dundam boobu nga xam ni uh, da ko war a dunde mu jël ko def ko ci leneen loo xam ne du dund ba dund ba mu ta ñàkk mën nañ koo dégg ay déggin yu baree bare bari bari bu yooyu nag bu yooyu amul nag moom dañuy rafet njortu ci ñi amee lu njaboot gi àq fay na bari euh, ñu yóbbu ko mu aji ñëwaat aj wàcc na ko euh, fa tabaarakallaahu ku ne loolu lay bëgg ku ne sax da ngaa bëgg maanaam sa bopp nga yóbbu sa ba yóbbu waate waa yàlla seddalewul seddale boo xam ni ndax yàlla dafa seddalewul yàlla moom day maye léeg la nga dégg ko naa yàlla dey man na lu ne ba mu des seddale a'uuzu billahi mina shaytaan loolu kenn du ko wax yàlla mënul nàngam yooyu kenn du ko wax yàlla dafa seddalewul yahabu liman yashaa moom day maye coobareem la yor waaw kii seddale nag kooku kay mooy jox kii lii moo ko doy walla ñëpp kat ku nekk doo am loo doy da ngay am nangam waaw kay ay xam ne nag yow sedd la woo da ngay maye kooku kenn du ko wax ni yàlla man lu ne ba mu des séddale ndax gis goo gis xañ na kii saa borom may ko ay milliards kii saa xañ ko ba bu tàllalul bu ñaanul du lekk du dund nga jàpp ni kon yàlla dafa sedd la loolu képp ku am iman xam sunu boroom doo ko ñemee wax mukk la ëppante nag ak ñu koy wax wax ju mel noonu ñen la yàlla ah, dig sawara nag ñooñu moom bari nañu de mbokk du du yéefar yi kese de du yéefar yi kese nag ndax yàlla digg na ñi nga xam ni ñi ngi julli seeni seen julli baaxul فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساؤون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ñi ay soxor euh, duñ al dëkkandoo benn jumtukaay jëfandikukaay benn ndab ba nit ñi xam nañ ko ba kenn leen ab buñ ko yitte woowul it duñ la ko abal waaw duñu maye ndox ba ñuy tibb xal ci kër yi sax kenn dugg seen kër bisimilah jàmm yu mel noonu wa yamna'una al-maa'un mbokk yi euh, yàlla digg na sawara ñiy tooñ ñiy tooñ est-ce que yéefar yi doo ngay tooñ déedéet yàlla dig na mooykat yi sawara ñii mooy yàlla dig na leen sawara yàlla dig na sawara naafeq yi ñu am basira am ak wóolu ci seen digganteeg seen boroom xam nañ xel ni naafeq day gën a bari muy jàngoro juy ne ci xol te la koy waral ngëm yàlla guy wàññeeku wàññi dem ba jeex tàkk leneen di ko remplacer te loolu day dal julit dal yéefar mbokk yi waaye ci alxuraan yàlla fësal na leen ci ñoom xam nga bi lislaam di soog a door ñaari catégorie ñaari catégorie dong la ñu gis benn catégorie bi mooy Muhammad ak ñi mu àndal beneen bi Abu Jahl ak ñi mu àndal di dem ba yàgg nag yàlla ni fang ñetteelu catégorie bi mooy al munaafiq mooy naafiq daal koy wax ci alquran dem ci suutul baqara gis nga ko waaye ci ngay gisee am ay nit yu yàlla yëkkati ay daraja yu kawe ñeel leen waaye am ñu suufe ay daraja lool ay wàccuwaay ba fa ñu mujj bu yowmal wala ayaasu billaah am ñu texe ñi ak way texee li ñi rek kon fexeel ba bokk ci ñi nga xam ni euh, al muminuun lañu te bul bul bokk ci waxuma sax kaafiroon yi waaye munaafiqoon yi ndax euh, ñetteelu catégorie boobu foo dem fekk fekk ña nga fa naa fekk day ne ci biir yéefar yi ñu jàpp ni ñoom la bokk mu koy wone naa fekk day ne ci biir jullit ñi jàpp ni ci moom euh, ci ñoom la bokk ndax lim leen woon ah, ndax lim leen woon kon ndax naafiq mooy ki nga xam ni zairuhul islaam ci kaw lislaam lay wane wa baatinuhul kufraan biir bi ak kéefar moo ci nekk yàlla tudd ko ci suratul baqara wàcce ci aayo yi lu mat ñett ak ñeenti aayo yooyu melal melokaanu ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla melal melokaanu ñi weddi yàlla waaye melal melokaanu ñi nga xam ne ñooy naafeq yi loolu di tam yi san bu sew bu leer nañ waaye fexe ba dëggu ba bokk ci euh, li bu yàlla fay as-saadiqiina bi sidqihim nga bokk ci waaye moytoo bokk ci yu asibul munaafiqiina bi nifaaqihim nga bañ bokk yàlla dafa moytuloo naafeq yi mbokk kon sa laaj bi laaj bu am solo la euh, est yi dong la yàlla dig sawara déedéet mbokk yi déedéet yàlla dig na sawara ay jullikat hmm? yàlla dig na sawara ñiy fen waylul waylul lil mukazzibina waylul sawara cey sawara woow tudd waylul nan ko yàlla musal lil mukazzibina ñeel na fenkat yi waaw ñaata Mohamed Abdallah Amina Fatima eh, Aïcha ñooy wax lu amul moom mi wax xam na ni day fen ñi koy diglu di ko seetal xam na ni day fen waaye moom ab dóorkat la moom day politique wala moom day mbubboo diine wala wala wala wala wala ñaata ñaata ngeen ci xam ma xam ko ci nga xam dafa mel ni léegi euh, benn mbokk euh, léeg-léeg nee na da gis nit ku lay gëmloon ni la amul sax benn mbokk man mii xam naa ci dara yow ni nga mel doo gaaw a jariñu ci nangam mi ndax foog nga def nangam foog ngay defe nangam subhanallah nga gis ni kon am na ñuy mbubboo diine xisa yi ñuy nettili am na ñuy mbubboo diine di woote la ñuy wax ci internet bi pour nit ñëw ci ñoom lépp dañuy fen te xam nañu dañuy fen maa ngi gis kuy layal boppam comme dafa waxoon ci ñuy bëgg a woote ni diw ak diw du ñu nekk candidat nangam nangam léegi li am am na ñun ñim noonu duñu nekk candidat falu muy layal boppam di wax ni mbooleem ku ci waxan yàlla la weer amu ci ku ci fenul man damay xool nit ñi daal tey nga weex ëllëg nga ñuul te sol mbubu diine ba léegi nit ñi di ñëw ci yow daal di sàkku ci yow ñaan te yow sa fen yi mi ngi nii ci internet bi rëy lool mel li ma ngay wax yow ay yàlla ah tey ma wax leen loo xam ni ah, jàpp leen ko su amul na ma tudd ab xaj su amul ma nàngam mel ni yow daal yow yaa yàlla mi dogal ba noppi subhanallah mbokk yi taqwalaa ku ci am dara dara dara am na loo xam yàlla waxan doo ko ñimee waxe noonu wallahi bu la yàlla wonee sax doo ñëw jël engagement yi di ko wax ndax saa borom moom yamhu maa yasaaw wa yusabbit ba tey maa yasaaw yërul yow yëroo mbir yi yëroo mbir yi kon yàlla ñim dig sawara mbokk bari na lool lool waaw dëgg yàlla même ñi nga xam ni ah dañuy bañ a génn asaka yàlla digle leen sawara waaw est-ce que jullit yi asaka rôle bi mu war a suyee nga xam ni Abdou Omar ibn Abdou Aziz koy génne dëgg-dëgg génne nga xam ne loolu gëj na fee amaat dem nañ ba ci kaw suuf gisatuñ fi jullit bu mën a lekk asaka ba asaka si ñu ci defar loo xam ne ci kaw suuf am na ñeneen ñu ciy jariñu sax ñu dul jullit ñi wër ba sonn gisuñu ko war a lekk asaka ndax normal gu asaka normal ponk social bu rëy bu bokk ci juróom ponk lislaam yi tax nit mat ak jullitam mat ñu sakkat yàlla dig na ñi nga xam ni duñu génn asaka gis nga ko yéen maa salakakum fii saqarin ay waa ji malaayka yi bu ñu ñëwee xool ñi nekk saxar benn quartier la ci sawara bu doy waar nag ñu ne leen cay yellu leen indi fii ñu ne ko nun dan daawul julli dan daawul julli sàcc si bokk nañ ci ñi yàlla dig sawara waaw sàcc si waaw naa fekk nag moom mbubb la moo xam ne ñi ko sol dañoo bari lool waaw waaw ñu noonu jaalokat yi gis nga ko waaye am nañ chance nag ñu ci bari am nañ chance ci ci ñi may tudd ndax bu ñu demee ba rëccu ragal yàlla dugg leen ñu tuub rëccu ko mu metti leen lool ca saasa lañ tuub nag defaatuñu ko ba nañu faatoo mën nañu rafet ñoom ni yàlla mën na leen a jéggal waaye ñi ko def faatuwaale ko ah ñooñu wala iyaasu ñi nga xam ni tooñu ñu yàlla yam ca waaye dañoo tooñaale nit ñi dañoo détourné dañoo sàcc dañoo yàqi der dañoo sosol nit ba bind ci moom waxte ca loo xam ni dara dara ñu wax déforme nit loo xam ni ba xañ ko ay yenn ak xam ba yóbbe ko loo xam ni ñooñu ñooñu fu ñu jëm fu ñu jëm yor ndoom ak tànk tax ku la neex fal ku la neex déplacé ku la neex eh, moom daal mbir yi daal doy na waar xam naa dinañ ci ñëwaat incha allah waxtu jot na wa salaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihali bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني